asalaamaaleykum euh, waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun euh, association des communicateurs républicains yi nga xam ne ñoo nekk cees ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp ah tey nag dañoo ñëwoon doon am benn fàttali bu ñu bëggoon a def euh, jëme ko ci njiitu réew mi gannaaw bañ ko santee gërëmal ko ndax ñun communicateur yi Thiès ku ne xam ne ne ñu ngi béy suñu waar sur le plan politique di jàppale président donc nag responsable fi ne ñi ñuy jàppale ci lañu la ñu am ak la ñu mën ñu ngi leen sant di leen gërëm waaye dafa am loo xam ne ci président rek la mën a jóge ñu sàkk woon ko ci moom bi mu fi ñëwee ci conseil des ministres rappelé nañ fi ñu war a jaar yëpp ñu ngi jaar moo taxoon tey ñu ñëw nag ah di ko defaraat cri de cœur di ko di ko fàttali parce que seetlu nañu chaque année muy Dakar muy région yu bari dinañ leen jàppale ci ay sukkaru koor jëme ci communicateurs yeeg géwél ya fa nekk jëmal jàppaleen ci ay billets Makka mais ñun Thiès toujours on est laissé en rade du ñu gis dara moo taxoon nag. la ñu ni xool waxoon naa ko président nee naa ko ñun communicateur yaa ngi fu ñuy dem wala mobilisation di am ci ay jakarta la ñuy dugg te loolu à risque la te bëgg di fekke bëgg di ko waxal lu baax bëgg di ko jàpp sur le plan politique rek a tax ñu koy rappelé ci mbaaxam lii doon mel ni lettre parce que min nañ ay leetre ba sonn mais lettre yi du jàll ñu ñëw nag def lii mu doon comme leen ni lettre di ko xamal ni daal ñun communicateur u Thiès bëgg nañ mu gestuñu bu baax jàppale ñu ci li nga xamante ne moo jamono yu mel ni ñëpp danañ ci jot seen wàll ay billet màkka ay suukaru koor ak ndimbali tabaski yu bari yoo xamante ne toujours dañuy gis yeneen région yi di ko wax géwél yi di ñu ko wax te ci gis dara waaw tabaarkalla macha allah yàgg nañ ci parti bi meeting bu mu am ñun ñi ñëpp ñoo fay ne demuñu fenn gisuñu ñu ci beneen instance ci moom la ñu mus a nekk lool daal moo doonoon tey suñu cri de cœur man ak sama mbokk communicateurs yi ma fa fekkal yëpp tabarkàlla macha allah ñu koy fàttali rek. parti bi ñu fi nekkee ga léegi am na ñu ñu a jàppale man mii di wax ak yow ma demee màkk première dame Marème Faye Sall ma ci dëkk man rek lii ñëw yem ci man kese sama sañoon sama morom yëpp sama nawle yëpp am ci bénéficié wu ci moo tax ma taxaw di leen kaasal ak di ak di leen laajal am na ñu ñuy jàppale rek ci ñu mën donte sax euh, euh, xalangu dajul suuf waaye euh, la macha allah ñu bari ñu ngi jàppale ci la man ñun it ñu doyloo ko donte sax la ñu bëgg lépp amaguñu ko waxe la lu doy yàlla rek ko mën a joxe yàlla ñu ko yàlla defal ñun président li ñu bëgg mu jàppale ñu mooy am na ci ñoo xamante ne ñi nekk en amu amuñu kër yu nu dëkk ñu ci bari ñeen ñi dañoo luye ñii am ay chantier àggagul ñu bëgg a àggale am ñoo xamante ne amuñu oto ñu dugg te parce que nit booy dem di jàppale nit di ànd ak moom. ba mu nekk au pouvoir war nga buy déplacé nga am oto boo dugg sax di ànd ak moom c' est plus c' est sécurité sécurité la bokk. bëgg nañu billet màkk yi ñi nga xamante ne ñoom lañ koy may chaque année ñuy mayee ay billet ñu koy dégg fu ne mu dolli ñu ay billet may ñu ko communicateurs yi nga xam ay mag lañ nekk ci parti bi mën cee dem a ak communicatrices yi parce que loolu c' est suukaru koor yi ba tey ñun amuñu benn suukaru koor dañ koy dégg yo am na nag ay responsable yu nekk dëkk bi jox nañu ay suukaru koor mais suukaru koor global yi jóge présidence ñu koy dimbalee communicateurs yi dans les régions gisuñu ci suñu bopp président dafa ñëw conseil des ministres ñu xamal ko ni ko son excellence monsieur le président Macky Sall ñun dañuy dugg ay jakarta fu ñu jëm te nag dañu nekk parti boo xamante ni dañu nekk au pouvoir te pouvoir bi yàgg nañ ci ñun yàgg nañ ci parti bi ku xam-xam na ci communication xam na ci communicateur traditionnel boo APR ñu sonn ci lool nag yàgg ci lool bëggoon président bu yemaaka yañ ko ñaanoon mu may ñu ko oto yañ ko ñaanoon mu may ñu ko parce que nag ñaan nit lu mu am aayul li bon mooy nga ñaan nit loo xam amu ko waaye ñun liñ koy ñaan président am na ko mën na ko te am na xol bu ko defee ndax nag bilan bi mu def ci Sénégal gëm na ni président yi fi daal yëpp kenn defu ko ci te it xam na ni am na yërmande ci askan wi lii daal mooy soxla si na nuy xeesu di nu fàttaliku di xam ni ci la ñu bokk nag te ak njabootam lañ te doo moom démb tey soog ñëw nag bàyyiwunu benn yoon ñoo ngi ci président Macky Sall te ci la ñu ba géej gi fer lépp lu nu mën ci téyel ko ay mbagam jàppale ko ko def moo jabaram jooju nga xamante ne ku ñàkk ki ñaan la muy Marème Faye Sall di yaayi ñëpp di xarit ñëpp nag di jigéenu ñëpp di càmm ñi ñëpp di jaboote ñëpp nag moom Marème fay Sall ñu ngi koy gërëm di ko ñaan yàlla gudd fan di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu yëgalee suñu soko ci barke Mohamed Salah ñun communicatrices yi ak communicateurs yi ñooy waxtaan ak le président de la république monsieur Macky Sall ñun tubaarkàlla ba mu jógee ànd ak moom ba fenn xooluñu fenn ku ne jël si nañu ñu bañ ànd ak Macky Sall ni Macky rek la waaye man damay solliciter la première dame Adja Marème fay Sall ci jëf yi baax yi ñuy gis ci tele yi ñu koy def mais ñun communicateurs yi communicatrices su Thiès gisuñu suñu bopp benn yoon ci APR te dañ koy sonn fu Macky dem ña nga ànd ak moom fu Macky ñëw ñi ngi ànd ak moom tubarkaal di taxaw ci milieu yi di wax lu baax télévision yi nekk ñuy wax Macky Sall rajo yi nekk ñuy wax Macky Sall première dame kon ñu war nañoo gis suñu bopp ci tubarkaal APR rawatina le président Macky Sall mi nga xam nimbalam law na fu ne waaye ñun waa Thiès day gisaguñ suñu bopp ci le président Macky Sall. bii màkka yi tubaarkàlla amuñu ci paasu màkka yi amuñu ci oto yi amuñu wax dëgg ñoom góor ñi mën nañ jël jakarta mais ñun jigéen ñi fu ñu jëm taxi la ñuy jëm la ñuy jël te ñaanuñu yàlla Macky Sall woote fenn wala waa APR woote fenn te teewuñu tubaarkàlla kon ñu ngi koy laaj. sunu wàll ci yëf yi nga xam moom lay séddale ñun communicateur yu a ak communicatrice yi di ko ñaanal yàlla na quatrième troisième mandat bi mu bëgg yàlla na ko yàlla may ci barke Mohamed te mu seddu guy ñun jigéen ñi nga xam ne tubaar fa kàllakaan ñooy ànd ak sunu càmmeñ yi te ñun amoon na lu dul Thiès fu ne la ñuy dem waaye boo waxee ñu ne ah Macky Sall de maye na fukki biyee géwél yi maye na terrain géwél yi may na oto géwél yi waaye Thiès bokku ci gisuñu gisuñu ci suñu bopp ñun waxuñu sax biye màkk waaye umra gi sax demagun fa si siyaaree gënu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di bëgg nañ ko ci koor gi te mënuñu koo am fu nu dem dañuy luyee taxi sunu càmm ñi ñooy fay taxi ya ndax amuñu ko ndax ñun kër yi la ñu des ak xale yeeg njaboot yi waaye président tu es le président de tous les sénégalais jàppaleel ñëpp loo ci man def ko ci lu baax yàllaay fay yàlla dinaa la fay incha allah rabbi waaye ñun mënuñu saa bu ñuy xëyee jóg ne ci liggéey bi di daw guddi daw bëccëg bàyyi sunu kër yi bu teeru amee ñoo ca gën. booy dikk ñoo ca gën booy dem ñoo lay gunge waa bu nu ñibbee nag bu nuy dem ñun ñooy fayal suñu bopp paas taxi ñibbi suñu kër président loolu dana lu bëgg mu deñ ndax ñun amuñu dul Thiès amuñu dul suñu njaboot ku nu dimbali nag suñu njaboot la ñuy dimbali ndax njaboot gee tax ñuy jóg Aïtou Marème fay sal yow sama mag nga ñoo bokk ndey ak Adja mu Diallo sa yaay doomu ndar bi mook sama yaay daan ànd ca ndar nga baax lool nag di def lu baax ma gis li ngay def teg ci sama bët waaw boole nu ci boole ci waa ñu gis ci seen bopp ndax buñ si gisee seen bopp ñun dinañ dinañ am maanaa kon ñu ngi lay ñaanal yàlla ak yonent bi maam Cheikh na Cheikh Saad ma yaakaar yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla deful nu sutura yàlla deful nu tawfeex ba lii ñuy liggéey yàlla mottali ko ba ku nekk xaj ci barka yonent bi